القلم الورى بيات خير الورى بالله والخلام لوات رب الورى سلوع والخلام خلم يا بالورى بايات خير الورى بالله والخلام لواجه رب الورى شلوع والخلام بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بايات خير الورى بالله والخلام لواتي رب الورى سلوع والخلام خلمي بالورى سعدت في خلمات الماء مهلة تخني ونسك في ربي وأن سلمي والخلم لوات رب الورى سلم سألت في خلمات الله ما موالة تخني علي سقف ربي وعن سلمها سلام سلو سألت في خدمات الميمونة تغني علي سقف ربي وعن سلمها آيات خير بلا والخلم بالورى سلو رافقت في خلماتي وفيخ خالقنا المنعم الخير ما الجالي والألم آيات خير الورى بلاوي والخلم يواجر بالورى سلوعي فاتت قلامي وفات القلب ما بدني في العواسك والمختار في خدمي عيقت خير الورى خدمي لواجرة سلو سلو عن الله رب كريم لا سريك له في الملك ولم دفر تنجلى عن عدمها خير الورى خير الورى الله رب كريم لا سريك له في الملك ولم بفر بل جل admiya
mbooloo mi nanu maas a jóg taxaw ca kaw njukkal seexul xaddiim maa ngi ñaan ku jóg màggal sëñ bamba yàlla na nga tàggoog tànk yu metti jug leen taxaw ca kaw màggal sëñ bamba
allahu rabbul karim la sharika lahu fil mulki walam di far dan jalala an admiya jàng
khairal wara
وقلمي khairal wara هاجرا بالورى rabbil wara sillam وقلمي ساخ المكارع والأكدار جملتها لخيرنا ويا باخ جل سوى خدمها خير الورى
وقلمي هاجرا بالورى والقلم لبس أخل مكارع والأكدار جملتها لخيرنا ويا باخ جل سوى خدمها خير الورى
وقلمي بالورى
لبس أخل مكارع والأقدار جملتها لخيرنا ويا باخ جل صاخدمها محمد رسول الله محمد رسول الله خاتم النبيين كسب ينتهي بإساخ المكارع والأقدار جملتها لخيرنا يا باخ جل صاخدمها خير الورى
وقلمي خير الورى
بالورى خير الورى
والقلم نبي ساخ المكارح والأقدار جملتها لخيننا يا باخ جل صاخد بها خير الورى
والقلم خير الورى هاجرا بالورى سلوى كبق مصطفى ساخ المكارع والأقدار جملتها لخيرنا يا باخ جل صاخد بها dem na kuntuno jaari dawme ne lumme jaari asame mam bambana saxal makara wal akdara jumlataha li khayrina ya baakhil jalla sakhidamiha خير الورى
وقلم خير الورى خير الورى لبس آخ المكارع والأقدار جملتها لخيرنا يا باخ جل صاخد بها خير الوقت
والقلم
كبق يونت بساخ المكارع والأقدار جملتها لخيرنا يا باخ جل صاخد بها ana soppey maam borom Touba loxo ca kaw du màggal borom Touba borom Touba nabi taraxasa idataw hiyidi imonam makatan fi fulkina wasi il masoni bil hamiya rabbil wara isil نبي ترى خسائدة هي دي منام خطل في فلكنا أسئل مسؤول بالنعمية خير الورى
وقلم سلا والقلم لبي ترى خسا وإدة هي ديمنا مخطا في فلقنا فاتح المسعان بالنعمية آيات قائد خير الورى
والقلم خير
بالورى الورى بالورى
وخندو لنا ترى قسا وإدة هي ديمنا مخطا في فلقنا فاتح المسعان بالنعمية
والقلم
محمد رسول الله أي بسرت خير الورى تطير سي مقت صلى عليه ومجيب الخادر حميا خير الورى
والقلم خيراً. خير الورى محمد رسول الله أي بسات خير الورى فمسير آسي مقت صلى عليه وجيب الخادر حميا آيات قائد
خير الورى محمد رسول الله أي بدلت خير الورى تمسير سمقة صلى عليه مجيبا خاد للهلي خير الورى خير الورى خير الورى محمد رسول الله أي بدلت خير الورى تمسير سمقة صلى عليه مجيبا خاد للهلي النبي صلى عليه مجيبا خادلين هميا مجيبا محمد رسول الله صلى عليه مجيبا خادلين هميا مجيبا إمام المرسلين صلى عليه مجيبا خادلين هميا مجيبا محمد رسول الله صلى الله عليه مجيبا خاد لنعمه مجيبا مجيبا إمام المرسلين صلى الله عليه مجيبا خاد لنعمه مجيبا محمد رسول الله صلى الله عليه مجيبا خاد لنعمه مجيبا إمام المرسلين صلى عليه مجيبا خاد لنعمه مجيبا النبي سألته في خدمة مختار خيب من ليكتف دار ما سرواي عن عمي سألته في خدمة مختار قيب من ليكتف دار ما سرواي عن عمي mbooloo mi góor ak jigéen mag ak ndaw la ñëpp dem taxaw ca ko ñu màggal sëñ Siré Lo Sann ku dem taxaw ca ko yàlla bopp laa lisi ne ñëpp ñu taxaw ca ko màggal
نبي سألته في خدمة مختار خيب من لي يصفت دار ما سروايا عن أمير خير الورى نبي ربي في خدمتي رضا يري عجبا من فيدها من يريني كل منبهم خير الورى
والقلم خير الورى أجرى الورى
خير الورى محمد رسول الله يا ربي تو في خدمتي فليرى عجبا من فلها بن يريني كل منبهني خير خير الورى الورى
والقلم أجرى الورى اللوح والقلم نبي واجحت من خلفي صالح فتن ولا نبي ولا خيب بمتحمي والقلم أجرى الورى
محمد رسول الله إن الرسول لا سي سن صدا به من ربه أسه الملوء والخلم
آيات خير خير الورى الورى والقلم خير الورى نبي إن الرسول لا سي سن صدا به من ربه أسه الملوء والخلم آيات
خير خير الورى الورى
وقلم عبد الورى
نبلي كن بكن سرمدا وجل مسير يسا يف الفرا بالبراء مثل المعارين loxo ca kaw du màggal xasiida gi ku ko def gudd fan gudd fan gudd fan wara misalal maarin lii kun mi kun sarmadan waccal masiir yasa jofal fara wara misalal maarin ليكن بال
waccal
مزيد يسار كما البراء للورى مثل المعاد نبلي كل بكون سرمدا أجل مسير يسا وفي الفرع الورى مثل المارين كن دو بروم توبا كن دو بروم توبا كن دو بروم توبا ci nabi li كل بكون سرمدا أجل مسير يسا وفي الفرع للورى مثل المارين وتحل وتحل وتحل وتحل بالورى ku bëgg borom Tuuba diikul bi kun sarmadan waccal masiir yasa jofal fara bil wara mislal maarini waccal jofal fara معرن صرفت وادي لمن اخذ الجميع ابكم واتواصل بالممدوح في النون يخدم واتواصل بالممدوح بالممدوح على البرايا وسع ساعة وأكرمها عند النسيء قاد لي بالميم والنار أعلى البرايا أقصاها
وأكرمها الذي جعلني بالميم
عند النسيء قاد لي بالميم والنون والنون قاد لي والنون عند النسيء قاد لي بالميم والنون قاد لي بالميم والنون هند اللسي جادلي بالميم والنون جادلي بالميم والنون هند اللسي جادلي بالميم والنون جادلي بالميم والنون هند اللسي جادلي بالميم والنون جادلي بالميم والنون إن اللسي جادلي بالميم والنون جادلي لمن كساني ورواني وأتحمني يراتي ساكر الكلوح والنون man kasaani دقلو
waxat la ma ne sakira كلوح ay wa تنبي خبي ومودي ورب آلي محمدتي لمبا لبما خد فاخ مصنع ummi wa
رضواني
wa mamadate
كسب سرين توبا خبي ومودي ورب وآلي محمدتي لمبا لبما خد فاخ مصنع واني wa mamadate bima قد فاخ يا ربي صل بتسليم بلا عدد على بسير بنسير منك منان تسليم على بنسير منك محمد رسول الله نبيك المصطفى بسالي نما وكن بكم لي في باد ومكنان bikan
دغلا مكنوني وكن بكن لي في باد ومكنان باد ومكنان وكن بكن لي في باد ومكنان لي في باد biba بعدين ومكنون وكن بكن لي في بعدين ومكنون لي في آمين آمين دار فتى توبى لمسكنه دار سلام بكما بالمكة والمدينة توبى daaru salaam daaru salaam siqantaanga daaru salaam amin bi daari fata tuuba ali maskani daaru salaam mi ka baabil maaka wal madina tuuba daaru salaam sikhantanga daru salam amin bi dari fata tuba ali maskane daru salam nikama bil maka wal madina tuba nikama sikhantanga daru salam amin bi dari fata tuba ali maskane daru salam nikama bil maka wal madina Tuba Darussalam Darussalam Takataga Darussalam Amin bi dari fata Tuba alimaskani Darussalam Nikama bil maka wal madinah Tuba Darussalam Nikama لك الترى في بخر آل العرات الحا وبامتداء برسول منك مامون برسول ماموني وبامتداد رسول منك مامون وبامتداد
ماموني ماموني وبامتداد رسول منك مامون رسول منك ماموني وبامتداد رسول منك مامون رسول منك مامون وبامتداد رسول منك مامون رسول مامون وبامتداد رسول منك مامون رسول keroog la Seex Bamba te ñu fab yal ba te li ko yàlla ba dem maayoon ba fab yal ba yal ba yàlla maayoon ba keroog la Seex Bamba te ñu fab yoon ba te li ko Yàlla ba de maayoon ba fab yoon ba yoon ba maayoon ba keroog la Seex Bamba te ñu fab yoon ba wéetali ko yàlla ba dem maayoon ba
Seex Bamba fab yan ba
ñu fab yan ba
yan ba ku sopp Sëriñ Tuuba keroog la Seex Bamba te ñu fab yan ba wéetali ko yàlla ba dem maayoon ba fab yan ba yan ba maayoon ba keroog la Seex Bamba fanal balaana dil si ko laakire doros qur'aana fanal balaana dil si ko laakire ku sopp Sëriñ Tuuba keroog la Seex Bamba jëkk a gis kurmaana أكمل كل المعنى فلان بلانا درسي كنا كري مامي سيب جيني فاما دمنا كنا كري بدم ما يمبا تمسل يخي يخي بدل في توبا بدل ما ينبا تمسل يخي Seex Giri Waadaan dem na limbar wëli ba dem daaw meer dama se la yokk yokk atan yoon ba gala ba dem daaw meer dama se la yokk yokk borom Tuuba dem na garam basa ba dem gëlwaa gëlwaa te mësa la yoxo yoxe ñibbi si na Tuuba dem
ba dem gaal
وفاء ينبا توبا ينبغي يا نون خدو يا أغلب داليا تأتني كوايا كفر روقايا أحمد مك أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد مك خادم دنجن ديوان تتعاوت البلايا رتي آلا واني لا أمشي لا توت البلايا سورتنا واني لهوان sopp Serigne Touba dëngañ diwe Cheikh Bamba dëngañ diwe Cheikh Bamba dëngañ diwe Cheikh Bamba dëngañ diwe taawatul balaya xeeti ala waane la am ci laa
asamaan seen na ñëpp jug taxaw ca ko ñu màggal seexul xaddim ku jug taxaw ca ko yàlla nga tàggoog bàkkaar jug leen asamaan seen
borom Touba dëngañ diwe Cheikh Bamba dëngañ diwe taawatul balaya rati ala waane la am ci laa tawatul surati la waane la waane Serigne sama sama jur sam dëngañ diwe mam Bamba dëngañ diwe taawatul balaya rati ala waane la am ci laa Totul balaa totul balaa yaa sóorati lawaani xaadim la asa abdullahi xaadimu rasul dunya wa oxra smatan wa xayra soo xaadimu rasul dunya wa oxra خادم العسى عبد الله خادم الرسول دنيا وأخرى سمعة وخير سوى خادم الرسول دنيا وأخرى بارك شيخ سالم ولا عسى عبد الله خادم الرسول دنيا وأخرى سمعة وخير سول خادم رسول دنيا وأخرى خادم مبلس في ناتن بكل الجنة من دارة المنن يا سلم الله بكل الجنة كل الجنة دارت المنن ما يسق متخاب لي سفينة بكل الجنة من دارت المنن يا سلمنا بكل الجنة بكل الجنة ما يسق متخاب لي سفينة بكل الجنة من دارة المنن يا سلم الله قال قانقا دار المنن كتب القراوكات كتب القراوكات كتب القراو ما يتغ منتخب ليس في لاتن بكل الجنة من دارة المنن يا سلم الله بكل الجنة كل الجنة لا تلمنا خادم كيروك لسيخ بامبا تبقي يجي كونغو كم لبسا لواتي نعم غونغو أحمد مباك أحمد أحمد أحمد بامبا باخ bayu Cheikh Mourtada keroog la Cheikh Bamba tabbi géeji Congo la la wàcce na ma gongo
Keroog la Seex Bamba Ahmadou Bamba géeju Congo kabla bisa neema gi Seex Mandu Mbee keroog la Seex Bamba tabbi géeji Congo Congo kabla bisa la wàcce na ma gongo keroog la Seex magi seex mënumbe magi seex mënumbe ahmadu numbe xabaar magi seex mënumbe keroog la seex bamba tabi gi yeji kongo kongo kam la bisaala wàcc ne ma gongo ahmadu bamba ahmadu bamba baala wàcc faal njëg yàlla gërëm naa la ba jox la sañ-sañ ngay fal di folli ku la neex jar nga kañ faal ana soppe yi maam Cheikh Ibra Fall loxo ca kaw lu màggal baabul muridiin faal njëg yàlla gërëm naa la ba jox la sañ-sañ ngay fal di folli ku la neex jar nga kañ faal garam na la
baabul muridiina Seex Ibra Seex Ibra Faal jébbal ko farta awam ba Ahmadu Faal ko taalal taal ba
far jabar ko far tawam ba Ahmadu Bala du ma taalal taalam ba Seex Ibra Seex Ibra Faal jébbal ko farta awam ba tawam Ahmadu Faal ko taalal taal ba
jabar ko far tawam ba Ahmadu Bala du ma taalal taalam ba talba si xibra fal jébbal ko mboolem kër ga ak lal yaa baraage naa ko mër nga
Ibra far jabar ko mboolem kër ga ak lal yaa Allah ya abaraya na kumbar ga fal njëga si xibra fal moo leen yabal maayomba ñi yóbbu ay adiya yët ko bamba Ababakar aj Ibra Basil Abdoulaye Ndour Modou Fall Wasil Cheikh Ibrahim yónni woon Mayomba ñoom ñeent dem nañu Mayomba ba dem Konakiri ñoom ñeent dem nañu Mayomba ba dem Konakiri ñoom ñeent dem nañu Mayomba ba dem Konakiri siyaare nan Bamba yóbbaale ay adiyaay faal mayombe malakire yare nan lamba Bamba bare ayadiya Fal Njaga dem nañu Mayomba ba dem ko naakiri siyaare nan Bamba yu baale ay adiyaa ju bari mayombe dem ko malakire yare nan lamba Bamba bare ayadiya ma Bamba baax li ko dale fii ba gànnaar ba weesu yaman ku fii góor yàlla am na la yaay samsu sama la sëriñ bi xaadim dong ku fii góor yàlla
ay nangu sama ma bamba baax li ko dale fii ba gànnaar ba weesu yaman ku fi góor yàlla am na la yaay samsu sama la
ñaari loxo ca kaw ñu njukkal daa bay maam say njaay ñaari loxo ci seexib ku fi góor yàlla fi góor yàlla am na la yaay santu sama ma bamba baax li ko dale fii ba gànnaar ba weesu yaman ku fi góor yàlla am na la yaay samsu sama la
ni ko dele fi banana bare ku fi góor yàlla ba ma baax li ko dale fii ba gànnaar ba weesu yaman fii góor yàlla nana yaay samsu sama la
gaana
fii góor yàlla
am na la yaay jëndu sama wax leen nga nu ko sëriñ siire loo gi fi sànnoo ma ne su ko xibaar se waarose Sanu Serigne Siré Lo ji fi sama gi fi sànnoo si ma ne su ko xibaar xaadiw nga nu ko sëriñ siire loo gi fi sànnoo si ma ne su ko xibaar se waarose loxo ca kaw ñu màggal Serigne Siré Lo ku ko def gudd fan gudd fan gudd fan moo dalal Cheikh Bamba Serigne Siré nga nu ko Serigne Siré Lo gi fi sànnoo si ma ne su ko xibaar si arase
ji fi sama gi fi sànnoo sa xibaar Serigne Siré nga nu ko Serigne Siré Lo gi fi sànnoo si mënee su ko xibaar waa arase Sanu Serigne Siré Fam- Lo ji fi sama ci fi sàlloo si mëneesu koo xibaar
xaadiw ngeenu ko Sëriñ Siré Lo ci fi sàlloo si mënee su ko xibaar si waa arase Sanu Serigne Siré Lo ji fi sama ci fi sàlloo si kenn du ko xam si waa xoro xaadim nga nug Sëriñ Siré Lo gi fi sànnoo si mënee su ko xibaar si waarose Sanu Serigne Siré Lo ji fi sama gi fi sànnoo sa gi fi sànnoo sa Sëriñ Siré nga nug Sëriñ Siré Lo gi fi sànnoo mënee su ko xibaar si waarose Sanu Serigne Siré Lo ji di fi fi sama sànnoo sa mënee su ko xibaar sëñ Siré ba yokk xaaral na gëgële bala daara daama ko dambel alaam ya mbaate muy dox yaa ngi xaar ak nag gële la daara la daara daama ko dambel ndaam ya muy doon daama ko dambel ndaam ya mbaate muy dox dama ko dambel ndaw sëriñ Siré Lo la muy doon Sëriñ Siré daama ko dambel ndaam ya mbaate muy dox ndaam ya mbaate muy doon xaadim sanna la wara we- we- weeru koor wa boobee la fa jaana maag tàngoor wa san sa bamba weer ko weeru koor wa boobee la fay jaana maag te la bi ca laylatil xadri ja bamba naa leen bamba naa leen munkir ak anakiru xamme nañu leen te laylatil xadr bamba naa leen bamba naa leen bamba naa leen bamba naa leen xàmme nañu leen waa sànn ca laylatul xadri ja bamba naa leen munkir ak nakiru xamme nañu leen te laylatil xadr bamba naa leen bamba naa leen bamba naa leen munkir ak nakiru xàmme nañu leen munkir ak nakiru xamee nañu leen munkir nakiru xàmme nañu leen nañu leen munkir ak nakiru xamee nañu leen nakiru xàmme nañu leen
xamee nañu leen munkir ak nakiru xamee nañu leen nakiru xàmme nañu leen xamee nañu leen munkir ak nakiru xamee nañu leen war ngeen a sant munkir ak nakiru xamee nañu leen xamee nañu leen munkir ak nakiru xamee nañu leen
Munkira kiran na kiru xamee nañu leen jërëjën jëf yàlla nañ ko teew ay déwén yu bari ci barke borom Tuubaa yaa jiite waa daarul xudoos guy min lu yaa di sees doonu murit fii ba France yaa yore jaasi xarnu be Seex Sidi doonu murit fii ba France habilla alim lay borom wilaaya Mbàkke doo maram ay sunu yaakaar ba fa daam xéewal na daj waa xarnu bi guy mbind sëñ Seex yoonu murit fii ba faraat habilla halim lay borom wilaaya Mbàkke doo maram yaay sunu yaakaar ba fa daaf xéewal na daj waa xarnu be wilaaya Cheikh Sidi yaay sunu yaakaar ba fa daaf Sidil Muxtaar nanga gaaw ñaanal leen sa réew mi ñu ne waaw na ñépp gee jël ba na xaaw ay ba ma te ci xarnu bee bu gee jël ba na xaaw Sidil Muxtaar nanga ñaan sasul la soobee dañu naan mi réew a jiite fii feneen ñaanal nu raw ci xarnu be na nga gaaw baay baay ba xaaw yàlla sa ay gi yàgg lool yàlla la wér yàgg lool na suñu réew mi am jàmm lool bu kenn ŋaayoo xarnu be amiin amiin na suñu réew mi amiin yàlla sa ay gi yàgg lool yàlla na wér yàgg lool na suñu réew mi am jàmm lool bu kenn ŋaayoo xarnu bi wax leen amiin amiin na suñu réew mi amiin yàlla sa ay gi yàgg lool yàlla sa ay gi yàgg lool yàlla na wér yàgg lool na suñu réew mi am jàmm lool bu kenn ŋaayoo xarnu bi amiin suñ baaraay baay ba amiin yaay bopp réew mi na nga ñaan xéewal yu daj bay waala nga na réew mi gi jël ba ñu naan li mas la am ci xarnu bi amiin amiin na suñu réew mi amiin yaay sunu yaakaar ba fa daam xéewal na daj waa xarnu bi tey yaay sun ba fa daam Cheikh Sidil Muxtaar yaay sunu yaakaar ba fa daam xéewal na daj waa xarnu bi yaay sunu ba fa daam ñaanal tawat na jëm feneen bekkoon na génn fi feneen xuloo ki xeex bu ñu ko seen na jàmm daj waa xarnu bi xuloo xuloo ki ñaanal tawat na jëm feneen bekkoon na génn fi feneen xuloo ki xeex bu ñu ko seen na jàmm daj waa xarnu bi xuloo ki xeex bu ñu ko seen xoloo ki xeex mënu ko seen na jàmm daj waa xarnu bi waxal sama am xoloo ki xeex mënu ko seen na jàmm daj waa xarnu bi waxal sa baay xoloo ki xeex mënu ko seen na jàmm daj waa xarnu bi waxal sa baay xoloo ki xeex mënu ko seen na jàmm daj waa xarnu bi waxal sa maam xoloo ki xeex mënu ko seen na jàmm daj waa xarnu bi waxal sa maam xoloo ki xeex mënu ko seen na jàmm daj waa xarnu bi waxal sa maam xoloo ki xeex mënu ko seen na jàmm daj waa xarnu bi jaajëfati sama taw bi yaay gis muy tàbbe sakta baraw taw bi jaajëfati maam Bamba
nanu àndandoo jóg taxaw ca kaw jaayu màggal seexul xaddim ku tedd ki jóg leen taxaw ca kaw dundal guddi gi màggal sëñ bamba
taw bi jaajëfati si leen waar ay bëri yaay ki leen waar bay nga ba bay seen waar jaajëfati maam Bamba seen waar ñoom bëri ya bay nga ba bay seen waar jaajëfati maam Bamba ñoom bëri ya ku sopp Seexul Xaddim la xoo ca kaw lu màggal ko ñoom bëri ya bay nga ba bay seen waar jaajëfati maam Bamba ñoom bëri ya seen waar ñoom bëri ya bay nga ba bay seen waar jaajëfati maam Bamba ñoom bëri seen waar ñoom bëri ya bay nga ba bay seen waar jaajëfati maam Bamba
bay naan daa bàyyi seen
seen waar ñoom bëri ya bay nga ba bay seen waar jaajëfati maam Bamba seen waar ñoom bëri ya bay nga ba bay seen waar jaajëfati maam Bamba seen waar maam Bamba jaajëfati si li saal ay jawe nga bileex saal bu siri ni kambun asaan jaajëfati maam Bamba alal ma kawe nga kawe nga bu siri ni kambun asaan ko cek bu siri ni kambun asaan jaajëfati maam Bamba alal man bu siri
asan asal yalel man basiri kambun asal waawaaw jaajëfati imam bamba
bu sëriñ kabul asan asal demam dema yo mata lépp yomb ba ñëpp naan ko jaajëf jaajëfe bamba lépp yomb ba ñëpp naan ko
bamba woo demam gema yo mata lépp yomb ba ñëpp naan ko jaajëf jaajëf fe Bamba maam nga maa yomba lépp yomb sopp seexul xaddim loxo ca kaw ñëpp naan ko jaajëf jaajëf jaajëf fe Bamba xaddim maam nga maa yomba tax lépp yomb lépp yomb ba ñëpp naan ko jaajëf jaajëf fe Bamba sopp sëriñ sirelo ba ñëpp naan naan ko jaajëf xaadim demam nga lambar naa tax lampu falile lampu كلية في دارين يا خلي بالنور lépp yomb ba ñëpp naan ko ko jaar sopp sëriñ si loo demam nga làmbar naa tax lamp fàddi leer demam nga làmbar naa tax lamp fàddi leer xaadim demam nga làmbar naa tax lamp fàddi leer كلية في دارين يا خلي بالنور lépp yomb ba ñëpp naan ko jaajëf jaajëfe Bamba demam nga lambar naa tax waaw lamp fal di leer kulli fi daarayni yaa xilli bi noor lépp fal di leer fal di leer kulli fi daarayni moom nga lambar naa tax waaw lamp fal di leer lamp fal di leer kulliya fi daarayni yaa xilli bil noor lépp yomb ba ñëpp naan ko jaajëf jaajëf jaajëf Bamba